mos a trahir laa wax yàlla yàlla leeral yoon wi la preuve est que xam nga résultat sax amagul mais sëñ Ousmane nañu xaar ba élection yi passé ne élection yi am rek na élection yi am ñu tëgg ko ba mu passé parce que ñoo xam Ousmane la wala ñoom la ndax ba léegi ville de Dakar amaguñu baromètre boo xamante ni moo ñuy àtte kii ngi wax lii kii di wax lee te ñun xam nañ mais ba ñu dem ci élection yi ba élection yi romb. Mhm. c'est bon. Mhm. par rapport ak dialogue bi gis nañ président de la république Macky Sall aussi initié waat aussi unième euh, dialogue euh, di. dialogue de la faim. waaw di ootuwaat li nga xam ne moo nekk toutes les forces vives de la nation euh, imam monsieur Dianté jàpp ngeen jàpp leen ne dialogue bi mun na nekk solution pour sortir de cette crise bi gis nañ démb en conseil des ministres sax kii di président de la république Macky Sall instruire nañ nga xam ne moo nekk ministre yor wàllum. dossiers yi ñu bëri seen xel xel dem si euh, la libération des détenus yi ngeen jàpp ne c'est des détenus politiques. ma gisal ban droit la am di woote dialogue. ah kon de je ah, veux. amu ci droit je veux ban droit ban droit la am di woote dialogue. actuellement amu ci droit. Hmm. moom le problème qu'il a posé mooy dafa am conflit entre assemblée nationale ak conseil constitutionnel. Hmm. moom loolu la bëgg a moo tax mu jël dogal ne. Euh, décret bu mu signé woon pour convoquer le corps électoral daf ko abrogé ana place u dialogue mm. dialogue moo koy réglé bu ko dialogue doon réglé kay na bàyyi ko processus continuer mu woote dialogue ak ci ban en qualité de quoi merci merci wax ji yëpp loolu la en qualité de quoi mm. et pour dire quoi est-ce il est candidat il y a six mois il a convoqué ici un dialogue xanaa dialogue boobu amul benn njëriñ kon na xam ne dialogue amul njëriñ mm. en qualité de quoi c'est pas ça qu'on lui demande loolu yëpp c'est pour en rajouter sur les motifs pour rester encore au pouvoir mm-hmm. comprends nga mm-hmm. dàq naa décret bi mm-hmm. waxoon naa ne du ma présenté du wu loolu calmant la comprends nga du ma présenté wu maay damay des si bopp réew mi ça revient au même wala sax moo moo tane nga présenté wu ensuite léegi damay woote dialogue ouvert bu dialogue amee dafay dépasser le vingt cinq euh, euh, février dafay dépasser peut-être le 2 avril. Mm. il va continuer à mais il convoque un dialogue en qualité de quoi président de la pare na. Mm-hmm. moom pare na. c'est vrai. et ces prisonniers. est-ce que loolu warul tax xam nga xam nga man encore là. xam nga man man mënuma xam nga man mënuma wax ci turu Ousmane Sonko. Mm. du ne dina dem wala du dem kii def la bokk. et à qui profite ce aussi parce que am na ñu naan na aussi euh, ce dialogue profite aussi euh, Ousmane Sonko à Pastef euh, non Ousmane Sonko non dama lay dimbale foofu rek Ousmane Sonko jante bu muy dem ci wo di wuyu Macky ci période Covid bi mm. il a consulté les instances de Pastef mm. Mm. ba mu déggoog ñoom moo ko yóbbu woon foofu mm-hmm. donc je considère que bu dialogue amee aussi mm-hmm. mu war a dem foofu moom xam na nu muy def pour mun a dem foofu ma ci war a waxtaan daf ci waxtaan daf ciy waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal mhm. te jàpp naa ne sax tey de ces gens là il va les alliés mhm. mais dama jàpp ne mhm. tey jii les gens ne sont pas contre le principe du dialogue kan mooy diriger bi c'est pas waaw c'est ça c'est pas à lui de choisir qui va faut que mu am ay termes de référence yu leer il faut que ñu xam kan mooy diriger dialogue bi Mm-hmm. mais loolu ça ne doit pas être une occasion pour reporter les élections et maintenir Macky Sall au pouvoir. Mm. monsieur Dianté moom le 2 avril fu mu jot dafa war a démissionner. monsieur monsieur Dianté. oui ñiy intervenir yëpp ci biir Sénégal ak li génn Sénégal américains yi ñuy wax Sénat bi. Mm. dégg nga ñu tudd Mawou jalo ce n'est lan la ñuy l'ordre ordre du jour. kooku xoolal ñun ñun ñun ñun Pastef. ci li ma jot man. ba bi may jógee fi may jógee tey waxuñu waxi dialogue xam nga waxi lan la ñuy wax. Mm. Macky Sall na dem. Mm. ñun loolu lañuy wax pare na. na faf ay bagaasam ak i kaakaam le le le 2 avril. na organiser élection yi loolu loolu moom moo mën moo nekk li nga xamante ni mooy li daw noo organiser élection yi waxi dialogue ñoom ñoo koy véhiculer mais imaam jàpp ngeen ne carrément que la communauté internationale mën na def pression sur Macky pour sur le président Macky Sall ba mu repos mais pression romb nañ foofu baal ma baal ma baal ma maam Ousmane lu tax lu tax ñu delloo si internet bi ah pour yow. Eh, lu tax ñu commencé yolomal di libérer bërki démb bërki démb ñaata personnes libéré wuñ soixante personnes hmm. romb ko di dem tey tamit de même lu tax loolu ñu def ko lu tax ñuy nooyal mais au même moment aussi prisonnier yu nekk occupé baal ma eggale c'est juste pour vous relancer euh, imam au même moment prisonnier yu nekk euh, fële rëbës interdit na leen li nga xam ne moo nekk visite ak euh, ñi nga xam li li nga xam ne sax moo nekk recevoir appel téléphonique aussi loolu waaw loolu dafa am dafa amoon mutinerie mutinerie dafa amoon mutinerie mais mais dellu si fi nga tukki yoon dafa amoon mutinerie parce que loolu la am na lu fa xew wala boog loolu la ñuy seet nuñ ko régler biir na ma ni fii ñu toll nii eh, bu ñu demee ba conseil des ministres. Mhm. li ñu fa gën a li ñu fa gën a fésal ci seen déclaration bi. mooy ni ministre bi nga xamante ni mooy yor. wàllum na fexe ba libéré. ñi nga xamante ni mu apaiser jël matukaay yi war. ah mooy mooy libéré rek libéré fa la jëm. Mm. apaiser ak yooyu yëpp libéré la jëm rek. loolu mooy wane ni. donc on va vers euh, la libération de prisonniers. mais foofu lañ jëm. Oh, jàpp nga ne Ousmane Sonko mën na ci bokk. daf cee war a bokk. Hmm. daf cee war a bokk. parce que parce que am na euh, naar bu ndaw lu mu la déey. ca bu mag ba la ko déggi c'est pas pour rien moo tax Diop si génn. wax joo wax jooju mu wax. donc qu'est-ce qui explique euh, gars yi di teg beneen argument bi aussi le président de la république a reporté lii les élections ndaxte dafa bëgg ñu juger li nga xam ne moo nekk le dossier d'Ousmane Sonko. reporté ak Bassirou Diomaye Faye xam xam nga fi dëkk bi toll. mais mais ma seex gis nga maam Ousmane jërëjëf maam Ousmane mais ah, euh, njàpp. Hmm. reporté fi mu ne nii. Hmm. teg leen ko fële. amatul. ñun li ñu tax di daje suba. Hmm. ak après demain ba ba mu fiy jógee. mooy ni. ay la yéwén am na jaaraama def na fi deux mandats. plus ñaari at. le 2 avril. dootul doon suñu président. loolu mooy wax ji. loolu loolu ñun ñun Pastef loolu lañ loolu lañ jàpp de ay affaire libéré nañ ñi ndax danañu libéré Ousmane Sonko ndax danañ ca boole Ousmane euh, Diomaye ñoom ñoo nekk di wax seeni wax mais li ma wérte wóor mooy waxuñu waxi dialogue. population bi waxul wax dialogue population bi li ñuy wax suba danañ ko dana danañ ci xam dara. Mm-hmm. population bi li ñuy wax conseil constitutionnel bu ñu génnee li ñuy génne ba pare danañ ci xam dara. Mm-hmm. mais nag na leen biir te wóor leen ni. jante mi xam na li may wax du yem suba. Mm. bu yemee suba day mooy Macky Sall dafa reculer ci décision. Mm. mais bu ci reculer wul du mos a yem suba. xam nga li ma ci li ma ci bëgg a dolli mooy. Mm-hmm. je crois que je crois que Macky Sall léegi sénégalais du seen gan. xam nañ ko surtout les facettes gis nga bu PDS indi woon ay firnde. dëgg la de dañ koy teg sur la table. ñu teg ko sur la table mu gis ko jaxara mm. moom mu def ay sondage yu bëri yu mën a def rek dernier sondage bi ne ko Amadou Ba bu demee day jàll. Mm. dafay forcer mu jëm élection. donc li yëpp euh, ragal euh, Pastef la. ils ont fait des sondages. le dernier sondage de la mm. présidence. donne à Bassirou Diomaye Faye 71 pour cent. xam nañ ko. 71 pour cent pour cent au premier tour. te te am monsieur Dianté nag loolu foogul. te maam Ousmane am na ci opposition bi ñuy xam bu ci suuf de naan naan bu yi am. bu ma waxee mhm. Mhm. jarul may waat. jarul may waat. Mm. je le tiens de source sûre. que ils ont fait un sondage xam nga ñëwoon naa fi ne la mhm. Ousmane Sonko pour cent bu gën a bu yées 61 pour cent. Mm. bii nii bu ñu mujjee def 71 pour cent lañ jox. monsieur Diomaye Faye. Mm. référendum nit wax na ma ne élection yi li mu bëree bëri bëri bëri candidat ñaar dong moo am. Mm. candidat Macky Sall ak candidat Ousmane Sonko. Ah c'est vrai y a y a cette ana ñu bëgg continuité ak ñu bëgg rupture. Mm. changement. du ñu wax sax projet Ousmane Sonko bi wala projet Pastef ana ñu bëgg continuité parce que kenn nee na moom candidat de la continuité. Mm. ak ñu bëgg changement fii lu candidat yi bëri bëri yëpp xam nañ ne kenn rek moo fi indi changement. donc moo tax ma ne nit na ma te Touba la ma ko waxee. élection yi ñaari candidat rek moo am candidat Macky Sall ak candidat Ousmane Sonko. te gars yi xam nañ ku ñuy tànn. donc moo tax ma ne la bu ñu amoon tuuti kii sax wala ku leen deewoon ne bu ngeen demee Amadou Ba dina gagné. Mhm. wala ñoo xam ne bu ñu ci dollee suuti seen càcc yi Amadou Ba dina doon gagné. kon bu boobaa ils allaient partir aux élections quel soit li ñu mënta wax conseil constitutionnel. waaw ah mhm. ah waaw mais dañoo xam ne fii nii bu ñu demee xam nga luy wolof naan gàcce bu gàtt moo gën. bu gudd bi gàcce bu gudd lay doon. parce que du ñu bàyyi Bassirou Diomaye Faye pour mu battre campagne. Mm-hmm. du Ousmane Sonko moo dem ki Ousmane Sonko joxoñ te nekk prison moo leen di gagné. Mm-hmm. mais mais mais jante gàcc gi sax feeñ na. oui xam nga gàcc gi fu mu njëkk a feeñee dañuy prime ñu ne 4 millions de parrains la ñu am. 4 mm-hmm. millions de parrains la ñu am wala 3 millions 500. amul waaw maa ngi ñëw <laughs> foofu mooy gàcc bu njëkk bi. site bu njëkk baa ngi noonu yow. nga am parrainage su yi. nga am parrainage su euh, nu ñu koy tuddee. député député yi nga am parrainage su. civil bi mhm. mais lu tax ñu jéggi ko dem ci élus locaux yi loolu moo lay won ni ñoom ñaar a am. li nga ciy li nga ciy li nga ciy xalaat mooy seen digganteeg Amadou Ba demewul noonu moo tax mu daw ñaari parrainage wuti ci parrainage bi nga xamante ne am na ci. conseil ah, mais loolu moom conseil des ministres d'hier bi. Euh, waaye non non loolu parce que président Macky Sall nee njàpp njàpp yoo tamit. imam ah mais imam. njàpp loolu la fay wane. imam loolu benn la. ñaareel bi xam nga wax am na lu ma xam daal. ah mais imam wax ñu li nga xam nga wax benn la mais xam nga ñaareel bi lan la. kañ la ñu wax ne dañu am 4 millions de parrain bi Ousmane Sonko ne nañu parrainé fii si Diomaye bi. waay waay ñu génne li ñu donc ñu gaawantu loolu yëpp pour préparer sàcc bi la ñooñu am nañu 4 millions de parrains xam nga modalité parrainage mooy yow bu ma la ne mënuma parrainé Moustapha. Mhm. donc c'est-à-dire que bu élection jotee yow lay woteel. Mhm. bu ñu préparer déjà euh, psychologiquement les Sénégalais que ñoom am nañu 4 millions de parrains. Mhm. mooy am nañu 4 millions d'intentions de vote. pour préparer seen sàcc bi. mais bu ñu amee 20 candidats comme ni mu amoon ci yeneen élection législative yi. ala kulli xaal dañuy naan léegi ku dem pour gaawantu ku dem cinq bulletins ngay jël xam nga lan moo nar nekk moo d'ordre bi. Mhm. na ñëpp bàyyi bulletin APR ci kaw table bi. munoo wax ne loolu moo nekk ci urne yi. parce que gis nañ bulletin APR fii. ça c'est vrai munoo wax ne mhm. boo jëlee euh, cinq cinq mhm. yoo mënut a jël. rek bu bu Amadou Baye bokk. c'est bu ñu gisee ne jal yaa ngi nii bu bulletin bii bulletin Amadou Ba. Ah doo sañoo wax ne moo nekk ah ah doo moo tax ñu reculer. xam nga. Mhm. xam nga situation bi. li imam doon wax léegi. ak mm. monsieur Dianté. daf may fàttali un peu veillu élection l'an deux mille yi. Mm. xam nga slogan bi lan la woon. élection l'an deux mille. waaw. Ah. Mm. xam slogan bi lan la woon. lan moo nekkoon slogan